بالله أعوذ بالله السميع العليم السميع العليم من الشيطان من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونتوب إليه ونتوب إليه ونعوذ بالله ونعوذ بالله تعالى تعالى من شرور أنفسنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى من يهده الله تعالى فلا مضل له فلا مضل له ومن يضلل ومن يضلل فلا هادي له فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له huwa alwahidu fi jaatihi la qasima lah huwa alwahidu fi zaatihi la qasima lah wa huwa alwahidu fi sifatihi la masila lah wa huwa wahidu fi sifatihi la masila lah وهو الواحد في أفواله لا شريك له وهو الواحد في أفعاله لا شريك له وأشهد أن نبينا و... وحبيبنا وأشهد أن نبينا وحبيبنا قدوتنا وقدوتنا محمدا محمدا عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله أرسله الله تعالى أرسله الله تعالى بالهدى بالهدى ودين الحق ودين الحق بين يدي الساعة بين يدي الساعة بشيرا بشيرا بشيرا ونذيرا ونذيرا وداعيا وداعيا إلى الله إلى الله تعالى تعالى بإذنه بإذنه سراجا سراجا منيرا منيرا وأدى الأمانة فبلغ فبلغ الرسالة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الأمانة ونصح الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله وجاهد في الله حق جهاده حق جهاده حتى أتاه اليقين حتى أتاه اليقين اللهم اللهم يا ربي يا ربي صلي صلي وسلم وسلم وبارك وبارك على هذا النبي الكريم على هذا النبي الكريم وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه ومن تبعهم ومن تبعهم وانما هم وانما هم بإحسان بإحسان إلى يوم الدين إلى يوم الدين ثم أما بعد ثم أما بعد قال تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها إن الله إن الله لغفور لغفور رحيم رحيم مارغوكو mu ne suñu borom bi nee na. daafin kilinte keerin. amul benn mbindeef bu am. men si ala neema kilin xakkoo diinoo. kenn ku ko xam ne mun na joxe ak xéewal bi nga xam ne def na ko ci yow. tentro bundaatu. ci wàllu xéewal ci wàllu sant. koto xaramalin kilinte keerin. mu ne amul benn doomu aadama bu am. men si ala jansanoo. boo xam ne mun na sant borom bi. a xakkoo la. ci àq bi nga xam ne ci la wara war a sant. neemoolu la. ci wàllu xéewal. ah min ki aadama di mi nga xam ne defal na ko doomu aadama. maari ko hanin daale mu ne yàlla borom subhanahu wa taala nee na wala in sakartum wala in sakartum la azidannakum la azidannakum wala in kafartum wala in kafartum inna ajabi inna la shadidun la shadidun ako naa la sontamma mu ne yàlla nee na su ngeen ma nangulee alhamna neemoo jans ngeen nangu sant sama xéewal alba jans la ni ngeen ni ngeen sante xéewal bara la jan soroñi waaye xéewal boobu ngeen di sant wo mi a atel ma mu ne loolu mënut a yeggee dara ci yéen par naal xan jansa waaye bu ngeen ma sante albata la son yita mu ne boobu nga wone ngeen ne nangu ngeen akula azidannakum mu ne kon la azidannakum insa la jiidi neemoo la dinaa leen jolli xéewal googu ngeen may sant la in kafartum waaye la in kafartum par naal man son waaye bu ngeen nanguwul amal na ne moo jansa nangu leen sant sama xéewal al fisir wala yaatal na ne moo ma da ngeen maa def yi fu fisir wàlle al sañil don ko da ngeen gis ne yaa nkat golen ne be mbulu am na mbugal bu métti ni moom maa fan na saaji ku delluwul boppam ci yàlla wo yaa nkatoo mbugal googa abilala kanne danañ ko teg sa kaw an mun tàngala yàlla nañ si yàlla musal aman soo la fonnin sileya ci baaxam ak xéewalam ten tuubal yaatu gannaaw sant yàlla gannaaw bi ñu ko santut yàlla nañ ci yàlla musal maarig wala fam nin sera tentoo koola mu ne gannaaw bi ñu sante borom subhanahu wa taala ci li nga xam ne moom la ñu defal ala neemolu jansoo koola gannaaw bu ñu ko sante ci xéewalam gi anin salaatoo koola kii la gannaaw bu ñu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun loo di ngiraa ñun to mu ne toogaay gi ñu toog fii na kontoon diroo mu ne nuyoo moom sëñ bi min be bi nga xam ne wéral na ko mboole ñaatali ñuwàla mu nga bu nga ko jël di ko jubanti Sénégal population yóbbu ko ci képp koo xam ne doomu Sénégal nga anin Sénégal di diinoo la alfaalu mulɓe Sénégal banko kan ak yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñoo jiite diine yi ci fii ci Sénégal mooy kilifa diine yi mbekkuma la mu ngi wax de kaabilo la toxoo la mu ngi wax ci xeetu bi nga xam ne ci la bokk isaa foo laye mu ne xeet googu la ñuy tuddee jaaxaa jaaxaa o jaaxa kaabilo kono mu ne ci xeetu jaaxa boobu mbekkuma la mu ne ci lay waxee xaasatan xaasatan kerkeroo ñaama mu ne jagleel ko karamu baa xaabiloo toxolo la ci turi ki nga xam ne mooy maam mooy karamoxo baa ci seen xaabila ci lay waxee mbe sénégal dimo bee kontoon mu ne mu ngi nuyu waa sénégal yëpp mu la ñi nga xam ne tamit bokkuñu ak ñoom diine bari ni be den lim bankoo la waaye ñun ak ñoom ñoo bokk mi mbe la mu ne mu ngi leen di gërëm mbe kontoon na mu leen di nuyu tamit utambo kola mu ne gannaaw loolu bii de mu ne tey de bii mu wala seen tulum baale mu na bésub sant yàlla la bii tey jii Sénégal diwo mu ne képp koo xam doomu senegal nga inganta ala tentura war ngaa sant yàlla bu baax ala ne moru kan ci xéewalu borom bi subhanahu wa taala aha ke xéewal yi nga xam ne defal nañu ko senegal yi li nga xam ne def na ko Sénégalais yi ala xam na ba kuula kono mu ne yàlla def ñoo génnee ci benn mbir moo xam ne eh, lookumu janni ñu lookumu be siira balaa semaine bii di yegsi mo hakkilitorun teñum ma mo ne kenn xelaatu wuñu ne ka fo ko bi ne bes bi tay di anta tara la fekkun ñi ci gido bi mbee bulu la kenn ku ci nek ya nga yore sa ngànnaay mbeñoo bunkam ñu ngi fetalante wala ñu ngi gañante hakke tension mo mbeke mo ne ndax tension bi nga xamne mo amone bang ko ñinga ci bir rew mi bar ala la fourni sira mo naay ci mbaxu borom subhanahu wa taala ala hinnanti ya ci xéewalam ak muccam election du taala mo ne election du taala mo ne election bi duguna taala ba genn xayroo kono ci jàmm rek la nekk tiisoo kono ci mucc rek la nekk silanta fen fen na lépp loo xam ne ragaloon nañ ko alhamtangaa bi yàlla musal nañu ci wa man ke fen fenti mu ne loolu nag da nekkul ci lenn lu fo alfa ñim maalu mu ne lu dul mbaaxu kilifa yu baax yi min saawanta ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon ani alfa ñim maalu ak xéewa yu baax xéw euh, yu baax yi wala babankoo ñi ñi nga xam ne ñoo nekk léegi ci réew mi wala duwaaku ñim ñooñu seen ñaan yu baax ya wala loolu mooy sabab oton be ala tentula mu ne ñu ngi sant yàlla ci mbaaxayu yàlla booba nema baalum mooti loolu xewal gu mag la de élection ba taala def nañu élection ba mu jàll président éluta yëkkati nañu président teg ko girim ba woon di manqué mu ne amul benn coow bu ci am mu tamboo ko la mu ne gannaaw loolu na félicitation mu ne mu ngi félicité félicitation am abetu bu ñaari mo ci gën a màgg mboo la ñaatili ñaar mu ne moom moom lay jël di ko jubanti di ko jubal président ma. ci président bi nga xamne mom lañu fal. mom mo Bassirou. mune mi nga xamne moy mooy Bassirou. Jaxaar Jaxaar. jomay Joomaay. Fay Fay. ma xooloon mu. mu nit la ko xamne ne. place woo barab bi mu nek ni place bi mu am ni ah mérité le mune mérité nako de. jom xam mom bara mune jambi li nga liggéey. ala bi sara la la yàlla di fay. wala taziru waziratun. mu ne wala taziru waziratun. wisra uxra wisran uxra moo moodola kato mu ne góorgóorul keneen ala me doo sara wala yàlla du ko fayee keneen ku ci des yaa min ke jo yow li nga jëf rek abe sara la wala moom la lay fay to mbaa félicité la mu ne kon mu ngi koy sant di ko gërëm di ko félicité ñim fi samante a baañin ci bi nga xam ne ngéneel gu mag gii ala xamin kaay nga xam ne yàlla defal na ko ko xaatam bindi jaarale ko ci banko ñi ñaato eh, muy jiite réew mi anta daarum fen fen kan mu ne loolu nag teguwul ci kaw lenn faafanla dur xoto mu ne lu dul sa góorgóorlu aɗa jigo ñimma ak sa jikko ju baax anaa anala famma jiyo ak wàccee sa bopp anala horaya ak sa gore la sénégal banko kano ak bëgg senegal anin a tafan wala ngan nela xalso ak sa yéene gu baax gi nga am ci sénégal ala ngan nela xalso ak sa yu baax bi nga xam ne moom mi mbiyaaneng président Ousmane mm-hmm. Sonko mi nga xam ne yéene gu baax bi nga xam ne am nga ko sa diggante ak président Ousmane Sonko alaaqatu sahar nabi teema mu relation bu wér moo nekk seen diggante même be laaring nga xam ne tegu na ci ala nin kiilaala siloo yàlla rek ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax abi laaring wala kan ci dag la tegu nin kanoo laata ala nin kiilaa kan mu ne su fekkee ne mbëggal dafa tegu ci yàlla sentaanoo bu kaa daabu la mu ne du ci foofu lenn rek moo ci mun a dugg wala mu nii diyaat mooy banneexu bakkan niidiya ɗum mune ɓaɗen ko bakkat nak oman place o soto a amul place mo hooluto ci nit mine hen yiiɗi nga xam ne xeex nañu seen bànneexu bakkan seytaan o kammoolu marsale mu ne seytaane daf lay doxal bala alala kammoolu tàngawol ma mu ne yàlla mooy musal nag ci seytaane par niiɗi yaa mu ne waaye bànneexu bakkan il faut nga la koo kele yow yaa xeexal sa bopp to Bassirou Diomaye Faye mu ne kon Bassirou Diomaye Faye président Bassirou Diomaye Faye président Bassirou Diomaye Faye anim président Ousmane Sonko ak président Ousmane Sonko wala niiɗi keloo mu ne nooñu xeex bi nga xam ne xeex nañ ko seen bànneexu bakkan bee seede a toomale ñëpp seede nañu loolu ila kafu ñoo yaa ñi ak seen àndandoor gi ñu am laarin dafa tegu ci ala haqiqole kan ci dëgg oton ɓe président o tentula a ne kon ñu ngi gërëm président mbe duwala hen ñu ngi lay ñaanal simaya baala gudd fan a jaate kendiya ak wér gu yaram dono gulen baañi mu ne yéen gu diis gii alhamdulillah kan nga xam na ko sa kaw faal mum sa sambaña sooni yàlla dimbal la jàppale la ba ni nga koy yóbbee yàlla yombalal la ko faal mum se bankuwo mohol la suxuloo mu ne yàlla ne yàlla def soxla waa réew mi wala wala soxloo soxla waa rew mi woy ke ala hammatu kummayaari mo mu ne loolu nekk sa itte bi gën am solo ala kanoo mum be banko ñing kam mu ne sopp bi nga xam ne soppe nga ko réew mi wax jiidi loolu yàlla yokk ko banko mu wol fana na kanoo réew waa réew mi tamit cofe gi ñu la cofal wo kanoo fana ha jiidi cofel googu tamit yàlla ko yàlla yokk ya jigoo mul naa kan yaakaar gi ñu am ci yow o jigoo yaakaar googu ala kanoo wala kulu ñaam yàlla bu yàlla neenal yaakaar ga benn tentrole jiidi la mu ne ñu ngi yokk suñu ngërëm ak cant président Ousmane Sonko ma jëmee ko ci président Ousmane Sonko de mu ne moom de ni mbe fonninkeli la mu ne suy digal képp koo xam ne waxambaane nga pour ha exemple o ngir ñu am benn exemple ak royuwaay bi ñu am afrique banko ñin ka ci réew afrique fii mbe Ousmane le Sonko mu ne Ousmane Sonko lay jël mboole kele yéen mooy moom lay jël exemple oti teg ko seen kanam mooy seen ba mu commencé politique léegi ay ku itan din mu ne won nañu loo xam ne politique politique o kono ci biir politique bi moo mo mandal wala kenn mosu ko woon a gis o keta saabuti mu ne loolu nekk na sabab daara dindigol bebulata ko képp koo xam ne nitu daara la ñëpp ko topp wala saaboo saaboti mu ne loolu moo nekk sabab yi tamit mooroo femba képp koo xam ne julit nga eh, kay sëriñ nga ni ha diinoo kanure nga xam ne sopp nga diine ji ibadaa den alala nga gëm yàlla iso i sonto Ousmane mu ne nangul nga Ousmane Sonko ah mu ne itandin na mu ne lan la ñu woon tilimo mu ne mooy njub tilimo njub Ousmane Sonko. mu ne Ousmane Sonko de. moo ko tëddee ni wala. nit ku jub la. Ousmane Sonko. mu ne Ousmane Sonko. ah Sénégal kaw na de. dafa bëgg Sénégal. Ousmane Sonko. nee na Ousmane Sonko. keelemu. jàmbaar la. ah min kanu atanoye. jàmbaar la goo xam ne lim bëgg la bëggal lim bëggal boppam la bëggal keneen. kila ñimala hadiso hoy te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci hadis to kila to ah, Ousmane Sonko la limaniya mu ne ngëmum Ousmane Sonko ata mansero doolu mooti mu ne bokk na ci misaal yi kila ñimma ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yuminu ahadukum laa yuminu ahadukum xataa xataa yuhibba yuhibba li aqiihi li aqiihi maa yuhibbu li nafsihi maa yuhibbu li nafsihi kilañumma ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moo kirimman limaniha mu ne am kenn amuti yéen ngëm yàlla fo ni moom xamen kanuy fawoye lu dul koo xam ne li nga bëggal sa bopp hoo kanuy tanoye moom ngay bëggal keneen ku dul yow atambita tooroo min to mu ne ci jafe-jafe yi mu jàll bi prison wala kitaala li nga xam ne mooy prison moo ci mujj xaatu xaatuxum walla kan mu ne lépp loo xam ne méttit la teg nañ ko ci kawam xaatuxum yu kuulu la mu ne ñu tuumal ko ci ay mbir yi tamit amee menu ci yoo xam ne moom ci boppam defu ko xakuululaa kan jël ay mbir teg ko ci kawam ene la ma mun laa politicien kilin bépp politicien bi fi mosa nekk mosuñ ko teg sa kaw ante laarim fen fen kan mu ne loolu nag teguñ ko ci lenn faa la ñun foo mu mu wax ne ko nga politique oo ke ala ye mu nañ def politique te jiital ci yàlla parce que bee xamul loom politique oo mu ne nit ñi xam ci politique li ñu miin a xam ci politique eh, na na Afrique banko yi ci Afrique fii ala siloo mu ne cosaan bi mooy xamoolu nee ne mooy nax nit ñi faniyaa bi koto won leen dëgg te fekk caaxaan a nekk ci suuf wala fenn nekk ci suuf Ousmane Sonko naata mu ne bi Ousmane Sonko ñëwee nag ako ah, nit ne ne roobe kela mu ne su fekkee dañuy naxe ahtar laa den tooñaaka waaye naxe boobu nette ko ci kaw dëgg yaa kele ñu ne saabu mu ne loolu moo tax ñu xeex ko oto mbafana tentula mu ne ko ñu ngi gërëm Ousmane Sonko mbafala fonninkel yen ko wax waxambaane yi ne Afrique la Afrique la produit fi la ñu ti mu ne lii de mooy produit Afrique la conserver mu ne nañ ko conserver nañu produit conserver nañ conserver produit Afrique bii Sénégal nag mu ne Sénégal nag ala holle har jigéen mu ne waaye ñoom la yàlla wërsëgal ala ngeen ma dantel yéen te fii la feeñee yi tamit ci ñun ɗum mooya aadolo mu nginti mu ne bokk na ci aaday doomu aadama fenkendo li lu baax anaabi bulla boo ko yoree imi alo doo ko xam yow ci sa bopp fona boti bulla ba nga rëcc ko ba mu ba nga ñàkk ko oto fonninke bee mu kon waxambaane yëpp ngay Ousmane Sonko kee nañ jël Ousmane Sonko def ko exemple oti mu nekk suñu exemple ndabaaroo beeto ci suñu jëf yëpp nag ni ngoo kee bu ñu defee loolu mbe bu ñu maasotala mu ne dinañu am lu baax otamoon seeroo ɗo fele yinti mu ne bokk na ci mandarga yooyu politicien kilinta son nañin na mu ne benn politicien nanguwul lii yete bali mansayala la yow ñu xañ la nguur ye sonkaadi doom nga nangu xañu ko ba pare jox ko keneen moo moo mu ne kenn ku ne il faut que mooy koo la mi yow sa bopp rek ngay wax war Ousmane Sonko haytandin na mu ne waaye Ousmane Sonko def ñu wonne ne akaate kuŋomu kundin ne ti mu ne moom boppam lu tuuti la ci bar projet mun baa waaye projet bi mu yore Sénégal la avantage moom boobu avantage su Sénégal ci la nekk moom moo soo projet sambano képp koo xam ne projet boobu mun nga ko yóbbu ci kanam wa ma xoowo nit kooku wala xakantambil moom moo war a jàll ay man sa yaa cika mu jël ngi yoo xam ne mooy nguur gi ahaadi jox ko adoho rakkam rakkam mool bi mën mën a ko moom bee foo mu ne li nit ñi di wax yëpp ci ay waxu caaxaan keseen taa ci li mu ne dara wéru ca Basiru Diomaye Faye mu ne Basiru Diomaye Faye laaloon ni mu ne moom xam na ko bu baax tooñaa ma xoolam nitu dëgg la tooñaa ma xoolam nitu dëgg la moo tirin ni wala ku jub la ante Ousmane Diam Fala mu ne moom de gëm ne ne Bassirou Diomaye Faye du mos a jàmb Ousmane aɗum fananta jam te Ousmane wayin denke ni a moom am na ci ngëm ne ne Ousmane ɓe dow kuwomin kel gouvernement oñin kon nee euh, ko joxoon gouvernement boppam anto ñoon kele ji mënul weesu lu toll noonu kanu saharande ɓe niñili teema mu ne ñii de tofel bu wér moo nekk seen diggante lan nantiya baale ɓe yi tamit mbi ala tarala ñu ngi ñaan wuti ko len kenn fo fo Sénégal la ñaata taxaw. lu dul yóbbu Sénégal ci kanam. daal taraala. ñu ngi ñaan yàlla. ala fo nusri akam. ci mbaaxu yàlla. loo nga ne ñi maawoo. yéene gu rafet googu ngeen am. faala sooti mandi. yàlla motalil leen ko. ñu ngi yokk suñu ngërëmande. xataa pastef groupe moo. ko dem ci bépp xam ne nitu pastef la. fonnin kelle muyti moo xam ay ay waxambaane lañu yoo xam ne isa fo ko ousmane fonle ye karanga da jikko mu ne da ngay foog na sax ousmane moo leen jàngal jikkoom moo momoje képp koo ci gis isu ousmane da jikko jàng da ngay gis ci moom jikkoy ousmane sonko kilimo ci wàllu njub tooñaa ci wàllu dëgg ala kuwa ci wàllu yàlla mbeduwaale yéen kon mu ngi leen di ñaanal mbeetentu la mu ngi leen di gërëm yi tamit Ousmane kilimee kuusiino a mu ne Ousmane moom kese mënul lenn ci boppam nit ñi la man la waa fee bu fekkee ne ñëpp taxawee wuñu ko inaati lu waa fee te néew ngeen taxawu ko jannaawe badal kasoo la balaa muy dugg ci kaso bi abulaaloon kasoo la gannaaw bi mu duggee kaso yi tamit maaloon fonka abulaal kasoo la nit sax yëgul ne Ousmane mu ngi ci kaso gi haa hakkille ñaa mu ngi kaa kooma ndax xeex bi ñu xeex ci ginnaawam xan naa bi jàng même bu fi nekkoon amee siyaawati mënta weesu loolu yaa siyaa bete gi mu ne isiyatal baake mu ne bëri na lool ñu ko mbébee toxoo fa la mu ne su leen da leen di tudd a listo xa jaam mu ne liste bi gudd na bar dool bi jee mu ne am na ci ñoo xam ne foog mu tudd leen na kilo tata mu ne xelam dem na ci almalik kan almalik Eli Malick a hatabla Amadou Ka Amadou Ba ñëw ci Amadou Ba hatabla Biram Souleyma a ci Biram Souley hatabla Ousseynou Lima ñëm ci Ousseynou Li hatabla Juma Sowma dem ci Juma Sow yaha siya mun a bëri eh, ko mbaɓe toko sulene da waaye mu gërëm ñëpp mbe duwale be mu ngi ñaanal bu neexee yàlla mbe duwala mu ngi ñaan inata kuwolu lépp loo xam ne seen bëgg-bëgg la abiski abe kelale yàlla dina ko def banko la ñaato toho yóbbu kanam yóbbu réew mi ci kanam wolum ila kanu lolu rek mom ngeen sopp aɗa wobe kelale te lolu yalla dina ko def lo loñamin keri yeng mune nit ñi taxaw giñu leen taxaw hani man silongola mu mune bu leen ragal dara ɓe ñatilinin minna li ngeen jublu Ya hasabatu wa doron ngeen sax ci lola molɓe critique o kelale mune nit ñi dinañ critiquer e ɓe ɓudale nomale o dinañ leen top bar mulu ye tambindi may nit ñi nga xamne ñoo leen wolu jàllale leen ci kanam population o muy population bi wala be tole ñooñu ñu ngi leen di xol de adu te bu neexee yalla ma solo fonu sira ci mbaxum yalla e di ngeen ko yóbbu ni nga xamene ngeen ko bëgge mbess Sénégal fon linkelu fanantentula mu ne mu ngi gërëm nit bépp waxambaane Sénégal Sénégal fon linkelu waxambaane yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal mu ngi leen di gërëm ñëpp min wulta ñi nga xam ne ñoo jóg hiilo taxaw hakkeloo ñu ngi xeex li nga xam ne moo fi nekk te suutili guddi ak bëccëg imaa daabula mosu ñoo bàyyi dara ke kenn loolu ay jàmbaar ngeen dool bi jee am na ci ñoo xam ne wala faxataatoo ñii seen bakkan des na ca mu ni toor aku baati loolu nag métti na sénégalais yi bi taala taral waaye ñu ngi ñaan yàlla man solo ci mbaaxu bi yàlla faala si xar jan xar ci gee xar janna yàlla na leen yàlla wërsëgalee aljanna yàlla nañu yeewoo aljanna hakkiloo mun ngi xeex bu ñu xeex bankoo ñi yéeng ngir réew mi ala yéeng ngir yàlla faala si baraaji yàlla fayee leen fon niñ nga xam ne dañoo dee ci ndaw xaake yeng defal leen ko harjanna sotooti a ah, ya jot aljanna kii la ñu ma xormo ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam doolu bi jee am na ci ñoo ne wala am na ñoo xam ne seen alal yàqu na ca ila naafuloolu ah seen alal ya abe kasarata yàqu na ca bii tey ba sigirin dañoo toog fenti bul amuñu dara doolu bi jee am na ñoo xam ne ye barma goleen soto am nañu ay gaañu-gaañu yu métti yee yee barma am nañu gaañu-gaañu yoo xam ne yee tooro toroxal nañ leen dool bi am na ci ñoo xam ne. yóbbu la kaso la. kaso bi. tuumoo kan. ngir tuumal leen rek. laarum fenn fenn te teguñ ko ci fenn. fo fan yaa na ko. parce que mbijan bankoo ñu doon ne. mu ne xam ne de. ku meenu hun noonu tel ma jàpp. fii dara mënu fi nëbb ci moom. ci mbaaxu bi yàlla. yow xam moo la kaso la. tëj leen ci ne fadilu keeta ci la bokkoon. waa naa ñu najjaytoo bu leen di leen tudd i hasiyan bëri nañu mbeefanan tentura mun mun gërëm yéen it mbe duwaale yéen mu leen di ñaanal yi tamit mbe duwaale yéen fanfan mu ngi leen di ñaanal bu baax aɗum ayin denkani asutole mu ne am na kóolute ne ñin kuuñum bee koola gannaaw lii yëpp ala bi xeer kutoo kele yéen yàlla dina leen defal xéewal bu bees boo xam ne yàlla moo leen ko jagleel ila baluwo too ci seen biiru dund ak li des ci seen moo doolu bi jee am na ci ñoo la ñaasa ngir ragal musiba bijee mu ne ñu bëree nga ci doolu fata siloo kan am na ñu dee ci yoon wi doolu siita am na ñu yegg man solo fana sira ci mbaaxu bi yàlla ma na mu ne fàttewul de journaliste solo fanan ku journaliste yi tamit min haaloon ñi nga xam ne ye keloo ke ñoo doon xeex ye tooroo kuwo bee sotaatu am nañu naq am nañu jafe-jafe yu bëri wala fanan siya bëri nañu nga kilo taata. mu ne dem na ci xelam dem na ci. Babacar Touré Kam ku mel ni Babacar Touré. nga kilo taata. ku xelam dem na ci. Eh, Papa Ali Niang ni Papa Ali. nga kilo taata. de xelam dem na ci. Mame Birame Wathie Kam ku mel ni Mame Birame Wathie. nga kilo taata. xelam dem na ci. Eh, TV la télé kaka humye Dawda mu ngi be mu la.

bi nga xam ne moom moo fi nekk tey nen télé Bungolu ak te néegu télé yëpp euh, mbébé mbébé tentu la mu mu ngi gërëm ñëpp Walfadjri Walfadjri ana ñoxon doolu ak ñu mel ni ñoom